ministre bi actuellement dafa amoon ay projet mooy orienter nouveau bachelier yi am na ay projet yu rafet ñu am année normale Sénégal ñu ñëpp loolu la ñu ñaan enseignement supérieur ñëpp loolu la ñu ñaan parents d'élèves ak étudiants yi lépp ñoom la ñaan mais loolu dafa am lu ko jiitu d'abord li ko jiitu mooy lan ñun université IBT Thiam de Thiès benn projet boo xam ne ñu mënul durer ay mois mu durer des années mënul bouger mënul dem fenn mënul pare xamuñu lu tax nee nañ ñu fay nañ ko mais jusqu'à présent mi ngi nii ñoo ko gisandoo amul benn liggéeykat bu présent sur les sites te loolu ñu bëgg lan la ñun université IBD Thiam de Thiès muy étudiant université jàng la ñu xam xamuñu leneen sacrifice yi suñu parent yi def ñu nekk xale ba léegi xaalis bi ñu daan dépense suñu pour suñu avenir la dama jàpp ni ab dëkk bu ñu ko waxee dëkk tey bu ñu nee dëkk ndaw yi ñoo tax te bu ñuy wax ndaw étudiants yi dañ see bokk parce que ñi nga xam ne ñoo nekk avenir u dëkk bi war a taxaw aujourd'hui pour ëllëg prendre relève bi ñoom mu leen jàppale lan la ñuy def mais da ngay ñëw université IBD Thiam de Thiès ay chambre yu doy même pas cinq cent des étudiants logés ñun xamuñu lu tax mënul pare fii mille lii moo fi war nekk mille moo fi nekk na loolu sax taxul régler mu régler problème étudiant yi tey boo xoolee bi pavillon boo fi nekkee benn chambre da nga fay fekk treize personnes quatorze amuñu salle de télé dañoo génne suñu tele génne ko si biti pour étudiants yi am fu ñu dëkk dafa jël ay engagement muy dans quelques mois il fera des efforts mais ñun buñ toogee am nañ patience bi xool nañ mais gisuñu benn acte bu posé wu buñ suñu xel dafay dal buñ gisoon tey ji ay ouvriers yu ñëw di liggéey parce que lu ñuy dund université moo metti te étudiant bi dafay dem toog biir restaurant xaar nit lekk ba pare pour mën a toog lekk dem war a dem defi examen war a jàngi pour une capa restaurant boo xam pour une capacité d'accueil de quatre cent plus de dix mille étudiants war faa lekkee nekk ñun jàng la ñu xam jàng la ñu bëgg parce que loolu la ñu suñuy parents sant teewuñu suñuy raq parce que tout simplement dañ leen bëgg a téye dañ leen ne téye parce que bu dikkee conditions ñu dund ñun nekk ñi fi nekk mënatuñ koo mag lan ay étudiants lan xam na ne bu leen fi indee dina métti trop si ñoom wala amaana mënul sax nekk parce que tey jii étudiants yi amuñu fu ñu dëkk amuñu fu ñu jàngee amuñu fu ñu toog lekkee ñi fi nekk rek mënuñoo lekkee biir restaurant si ñoom la dépendre gëm naa ni buñ si am ànd ak pas-pas ak gëm-gëm ak engagement bi mu wane woon au début def visite mini visite site yëpp solution bi parce que lii pare na ba pare li muy laaj bariwul pousse la rek mu tàkk donc effort yooyu bu ko defee gëm naa ni mën na nekk. directeur kii ñëw na pour xool condition yi te xam na li étudiants yi dund fii. dugg na si biir chambre yi waxtaan na étudiants xam na ne service médical bi déjà mënul contenir plus benn benn salle de soins moo fi am pour dix mille étudiants mënul ne benn restaurant bi capacité de quatre pour dix mille étudiants ne mais loolu lépp dañ ko muñ di jàng parce que jàng lañ moo ñu war suñu avenir moo ñu war loolu lañ bëgg loolu lañ parents sant mais dafa am foo xam a yem actuellement on est on est à bout de nos efforts. c' évident pédi commission sociale ñoo mën a ànd de pair bi bu amul fu mu dëkk mën a yeewu sangu ba set. lekk ba suur dem jàngi kooku nan lay defee examen mënuñu xool xëy di war di jàng hmm. parce que y a des conditions minimum ces conditions minimum c'est mu régler de Thiès centre benn la hmm. mais pavillon yi dañ ko war a jot te ko war jot ci lu gaaw ay étudiants yu responsable la lu tax ñu nekk responsable hmm. parce que dañoo muñ muñ ba see à chaque fois kon buñ waxee rek c'est-à-dire sës na buñ génnee rek kon sës na kon buñ demee ay étudiants yu responsable di wax wala di ñaxtu rek kon liñ war na def yëpp amaana def nañ ko ba pare lu ne am na ab te ni nii fi ñu nii ñun sës na mooy lii dañ koy jot si nii wala dañ koy jot si naa octobre le 7 octobre lañ war a ñëw te ça dépense ñoom année bu normal ça dépense ministre bi li mu bëgg dépense moom ñun liñ ko ñaan mu livré ñu ko avant ñu ñibbisi mënuñoo dugg parce que déjà li ñuy rek ñoom buñ ko dundee amaana seen parents yi dina leen ñaax amaana seen dina loolu lañ leen baña parce que on juste dañ leen bëgg a